na nga xamante ne ñooy ñu ñuy jëflante ci bitim réew te muy ñoo xamante ne yàgg na ñoo ñëw Sénégal nañu xam ne wala bëgg nañoo ñëw Sénégal ñu xam ne Sénégal na ubbeeku Sénégal tey la gën a wóor te senegal tey la gën a taxaw sax waxatuma la biir senegal waaye biir Afrique biir CEDEAO biir UEMOA pour am pour dal am fa pour jàmm am ndax ku ne Sénégal nag wax Cheikh Anta ku ne Sénégal wax Léopold Sédar Senghor mi nga xamante ne yàgg naa xar ci tànku tubéyam pour réew mu Afrique booloo pour askanu Afrique booloo kon loolu dinañ ci taxaw gën cee taxaw xar ci suñu tànku tubéy ba luñ ci mën a matal rek ci niñ ko waatee ñu matale ko noonu.